Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage

Euh, dugg ci sit internet pour waxtaan ak kenn ci ci ci gars waaye sa euh, waxtaan bi nga def léegi am na solo trop waaw ci ci soxna si waaw wax dëgg yàlla xam naa nag peut-être li nga doon laaj temps yi passé weesu na waaye rek ñu dugal ci sunu xalaat bu ko defee bu ëllëgee bu ñu amee lu ñu wax ñu wax la ko waaw loolu daal xam naa la laa ne xaaral ma dugal ko pour wax la ko waaw parce que li ma gis man ci mbir yi moo di Euh, pour bañ a guddal mun naa cee wax lu baree baree baree bari waaye comme nañuy doog commencé xamuma xawma la maa ngi nekk bitim réew waaw léegi nag euh, te man li ma la wax rek waaw yii du samay kii te comme damaa nekk koo xam ne bu ma waxee ñu xàmme ma moo tax bëgguma di dugg ci yu bare baree bari waaw du ma kii nag waaye am naa ñu ma xam <laughs> waaw waaw te dañ maa xaw a jox cër tuuti waaw léegi loolu moo tax léegi man sama problème mooy man ndaw si wax dëgg yàlla yërëm naa ko ci ci li ko dal moom moom moom bi mu nee muñ moom ak i taalibeem peut-être dina dina dina mën a mucc waaye nag dafa am benn erreur de communication boo xamante ni maanaam moom moo ko arrivé waaw loolu moom mooy dafa xaw a yéex ci ci ci façon bi muy communiquer ba pare boole ci fa ñi nga xam ni fa la fa la fa lañ ko war a dégloo war leen faa dégloo dafa am ñu ko fa jiitu waaw ñu ko fa jiitu nag dañ faa am doole waaw te yàgg ci communication classe bu Maxtaar Jaxate gi ak euh, Euh, sëriñ boobu mu ko seqal xaw ma nan nu mu tuddati ñooñu dañu kaa jiitu ci kilifa gi ndax kilifa gi moom nekk na koo xam ne nii ku ku ku ku ragal yàlla la ku baax koo xamante ni xale bu ndaw bi doog a juddu sax mën naa mën naa mën naa jubóog moom waaye nag xam nga kilifa boo ko doonee doon mag am ñoo xamante ni jox leen ngeen leen confiance ñoom ñu ñëw di la di la wax te li ñu lay wax moom kilifa gi amul matuwaay bu mu mën a demee dem gëstul ko boppam kooku day jafe pour moom moom moom moom moom mu mu mu farak mu farak ndaw si wala mu mu mu comprendre li ndaw si def problème bi kay mooy ndaw si jéem a comprendre xam ne instant yi situation bi mu toll moom du ci mën a génn ci noonu waaw maanaam mbiram moom maanaam diaboliser nañ ko ba pare maanaam yàqal nañ ko ba pare waaw ci si saayir parce que li ko waral mooy faw mun a teg waaw gis ñoo xamante ne nii mën nañoo dox wax mbir mi lijjanti ko ba mbir mi lijjanti ko parce que mbir mi nekkul loo xam ne lu jafe lool la waaye dañ koo gañe ci terrain bi ba pare waaw li ñu ko gañe ci terrain bi ba pare la ci saayir bi mooy terrain bi waaw loolu moo tax fi mu toll nii euh, pour mu génn ci day jafe parce que yoonu murit ni muy doxee noonu moo tax parce que su fekkee ne maanaam euh, li nga commencé ojo bi dégg na Serigne Touba dafa wax ne li mu def li muy def ci ci ci nit ba nit ñi di ko topp bu ko defee ci garab suñu topp ko loolu dëgg la waaye nag da neex a gis du neex a gëm ndax Sëriñ Tuubaa wax nañu wax yu demee noonu yu bari bu ñu demee ba ci jëmi jamono ba ji jamono bi changé sët yi commencé ñëw nga xamante ni ñoom ñoo may xaw a yem tuuti jikko day gën a garaaw bu keregee ne kenn ku ne da ngaa war a jël sa responsabilité waaw léegi nag jamono ñu toll nii mën nañoo doon lii ne lii buntu bi la waaw buntu bi loolu ñu sëñ bi doon wax la ndax sëñ bi du wax lu dul lu dul ñëw waaye nag comme gagné nañ ko ci wàllu woowu faaw moom aussi mu mu mu arrière tuuti defar communication ndax sëñ Modou Kara mi ngi def mi ngi def euh, euh, nu ñu koy xati Euh, màggalam Thiès te te te te te sëtu maam sëtu maam Thierno la ah léegi moom am na ñu xam man xamoon naa ne affaire bi bu fekkee ne stratégie bi noonu ma ko tëralee moom moo ko choisir woon noonu réussir na ko mooy jéem a fexe rek moom def la mu daan def suñ ko rejeté tamit teewul moom mu jéem a def la mu daan def doo ko mën a nag am possibilité wu moom des ci dëkkam bi mu doon des ak i taalibeem ndax li ko waral mooy liñ ko dénk rek moom na fexe ba buy euh, de buy dee liñ ko denk bu mu fexe ba mu bu leen mujjee pousse bi mu réer c'est ça lolu moy l'essentiel bi. légui nak problème bi moy ki nga xamné mom lako sékkal aussi dafa nek ko xamanteni dafa out ay ay ay ay ay ay ay soldaaram yoo xamante ni ñoom ñoo ci walu wo waaw jitu ko nak ci terrain bi comme jigen la ak Sénégal ni ñu jàppee jigéen looloo tax waaw looloo tax amna ño xamanteni mën nañu and ak mom mais duñu mëna and ak mom ndax. li liñ ko jiitu ci nopp sëriñ bi ba ba moo tax loolu mooy gën a doon problème am moo tax moom dafa war a ànd ak dal nekkaat ci lim nekkoon comme interdit nañ ko mu def yenn affaire yi na na na jàpp ci li mu nekk moom ak ay taalibam fa mu toog en attendant mu mën a euh, am euh, relation boo xamante ni nii keneen dina ko dox digganteem ak sëriñ bi waaw man mi wax naa ko sama benn waay dem danaa ko li ma nekkoon Sénégal li may nekk ab xusuma ñàpp yëpp man lu mu néew néew néew dinaa ci jéem a mën a jéem am loo xam ci naa ñëw ci soxna si ma ko mënee gis wax ko ko ndax dafa am yoo xam ci zaahir la am yoo xam ci baatin la waaw moom yàlla dimbali na ko moom li ma wérte wóor mooy am na lu nekk ci moom moom bu ko yëgee mi ngi ci moom bu ko yëgul mi ngi ci moom waaw mais xawuma ko xawuma ku ko jege mais man su ma xamoon wala ma xam ko jege wala yow mi sa bopp nga dem ba ci moom mu d'accord ne naa ko wax nga nga kii ko man mun naa la koo wax waaw du ma sëriñ du ma dara nag benn simple citoyen laa boo xamante nii wax dëgg yàlla waaye nag yàlla moom bul jàppee sa bopp benn simple citoyen jàppal sa bopp gëmal sa bopp jooju ñuy wax mooy jàppal na yow yàlla suñu borom moo la bindi te ni mu la bindee noonu la bindee bépp doomu aadama te ni muy rayee ñëpp noonu la lay reyee waaw ngëm gi nag ak li ñuy wooyee nit ñi titre yi kooku nit ki day dem jàngi journalisme doon journalisme kenn ki dem jàngi daara doonu sëriñ kenn ki dem jàngi bijoutier doon moom kenn ki dem jàngi tôlier doon moom kon kenn ku ne jàppal li nga nekk na yow eh, moom ci nga war a ne waaye bul jàpp ne yow nekk nga ci lii rek ka nekk ci lee moo la war a gën waaw Mm, boo bokkee ci mbir nag ni koy ni ñu koy doxalee noonu da nga caa war a ànd jéem ko jéem jéem a jéem a doxee noonu waaye su fekkee ne nag yow dem nañ ba nga xam te mbir mi rëcc na la te te te te pour nga dabuwaat ko day jafe non kooku day jafe maanaam pour mu dabuwaat mbir mi xaw a jafe faaw mu ne teg def ndànk waaye nag li ma la mën a wax daal li tax problème bi mënuñu ko accepté instantané dañ ko dañ koo mën ci terrain bi waaw communication bi nga xam ne moom lañ def diggante sëriñ bi ak gars yi nga xam ñoo wër ñoom Moustapha Diakhaté genre yooyu maanaam dañ koo ci terrain bi faaw mu reculer tuuti moom ay taalibeem xam ne ñoom liñ nekk man jàpp naa ne man dëgg la xaw ma leen de duñ sama sëriñ duñ sama duñ sama dara waaw liñ nekk man xam naa ne am na lu ma ci xam xam ne loolu ñu nekk dëgg la ñoom seen bopp sax liñ leen jox ñoom seen bopp mënuluñ ci seen bopp dara su leen neexee su leen naqaree day des ci seen loxo day des ci seen loxo kon nag ñu rafetal ko te xam ne ñoom buñ ci buñ dëggalee te nekk ci liñ nekk suñu borom ne leen dimbale ñoom daal li may xalaat mooy ñu ñu ñu sax ci loolu te xam ne nag yi sax bu ko jëndee ngir jëmmi màggal su leen bàyyee ñu dem ci àll bi nit ñi for nit ñi for leen sax lekk leen sax am na yoonu màggal moom ak i taalibeem waaw ndax ngëm moom rek mooy jëriñ doomu aadama sa xaalis boo gëmee ne yow mi su ma ko sànnee fi bu ko kenn foree maanaam dina ko jëriñ te bu ko lekkee mun na koo jëriñ waaje jooju yow yow mi sànni xaalis boobu sax mun nga caa am yool sàkkaamaa nag ngay liggéeyal Serigne Touba waaw liñ ci mën a wax bari na mais dañuy bañ mu gudd waaw xam naa peut-être am na yeneen yoo xam ne nii euh, mbir la yoo xamante ni du du du mbir yoo xam ndax wóoruma ndax Euh, parce que damaa dugg nii rek xaw ma la waaye man li ma wérta wóor boobu ba léegi maa ngi jéem a lijjanti numéro ku ko jege sinon saalu Samb pour waxtaan ak moom ci yenn mbir xamal leen ne man moom ak Saliou Thioune laa ak laa yemal ndax xaw ma leen ci kenn man taalibi Serigne Touba laa te taalibi boo xam ne nag bu moderne xam li muy def te di ko teg ci ndigali sëriñ bi ni ko sëñ bi waxee noonu laa koy doxalee du kenn wala kenn ku ma mën a manipuler wala benn sëriñ boo xam ne mën nga maa manipuler waaye man xam naa wér ne sëriñ bi moom sering la boo xamante ni kuy ku mu neexoon sax nga jàppee ko sa maam waaw amul benn problème waaye nag ndaw si dañ koo jiitu ci ci ci ci terrain bi waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax xam naa peut-être bu fekkee ne déglu nga sama audio bu fekkee ne def nga ma benn signe wala benn ki bu ko defee dinaa mën continuer di waxtaan ak yow ci samay idée quoi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah senegal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci senegal 4 TV numéro Sénégal 4 TV il 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Si vous gagner nga ci kër gi nag le bouton abonnement Et voulez bul fàtte la cloche de notification bi pouvez ngir tardé vidéo et maintenant bon visionnage. yow mi tawat am jafe-jafe ci sa wàllu wér gi yaram di wër fan ngay fajoo jokkool ak waa seen home technologie nga jokkoog monsieur Dia ci 77 140 40 48 nga jël sa rendez boo egsi dañu la defal analyse ci sunu machine bu mucc ayib bi di détecteur d'anomalie maanaam bépp jàngoro bu nekk sa yaram dañu koy gis ci bile machine duñu ca yem de daañu la defal itam massage bu mucc ayib ci sunu sées bii nga xam ne mbooleem jafe-jafe bu doomu aadama am ci yaramam daf koy massé taxawula la itam jàppale la ci sunu produit yu mucc ay yii nga xam ne mi ngi ci sunu bërëb ak seen home technologie mbuulim jàngoro bu waay am dañu koy saafara wuuteel kaw ci 77 140 40 48